bismillahi rahmaani rahim yéen mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi ci réew mi ak bitim réew rawatina njabootu sëriñ Tuubaa sëriñ Saliou Mbacke soppe yi xarit yi ànd jàmm yi dalal ton Majmahun Nurayni fi fawaid darini waa kër sëriñ Saliou Mbacke Xelkom di dalal ton boo xam ne li ko tax jóg mooy liggéeyal sëriñ Saliou Mbacke yaatal liggéeyub sëriñ bi ci xaside yi yombalal itam murit yi tàbbal seenub liggéey ci liggéeyub sëriñ Saliou Mbacke bii jaare ko ci dalal ton ana nuñ koy defee yomb na lool da ngay envoyé message SMS au 28 nga def dalal espace mooy nga randu tuuti def 763 15 75 tàmbali nga am nag li nga xam ne mooy SMS bi ci dalal bi ngir mu yomb lool numéro yi nii mu toppante rek boo bëggee mooy bu 1 mooy bu 2 mooy bu 3 noonu ngay toppante. bu fekkente da ngaa soxla miladi yaa ngi koy tàmbalee ci 763.

15 81 euh, boobu boo ci dolli numéro boobu mooy alxuraanul karim bi yaasal bu saadaati nga daal di wéyal ci numéro yi diggante 82 83 84 numéro yaa ngi nii nga janool yomb na lool mbokk yi li nga xam ne yaa moom da ngay xam ne yaa moom waaye na fekk nga am nag juróom-ñaar fukki dërëm laataa ngay bés lii wala laataa ngay def SMS bi. saa boo wootee téléphone. ba dégg xasida gii da nga daal di dégg soxna su naan la soo bëggee am dalal bii ngay waaj dégg bësal étoile ak un nga bës étoile ak un dal di ngay am mawaahibu naafix wala midaadi bi wala yaasal basaraati wala alxuraan waaye na fekk nag nga am trois cent cinquante francs mooy juróom-ñaar fukki dërëm ci weer wu nekk lay doon at mi yëpp nag di juróom-ñetti téeméer ak ñeen fukki dërëm quatre mille deux cent rek la lay dikkee ci addiyee ji ngay jox sëriñ bi te doo ko yëg